subhanahu wa ta'ala moo ne s'il peut on le waaye yow oh, kii dafa yabaate mais il mérite de kii quoi ay fouet dafa yabaate xale bi Sonko s'est attaqué frontalement à la justice à Dame Justice la plus belle dame du Sénégal insulte tous les juges procureur juge d'instruction nouveau juge d'instruction nouveau doyen des juges il n'épargne personne mais je viens de comprendre même le le président de l'OMS lui a donné un cours de droit un cours magistral il dit qu'il est juriste mais Sonko devait être un nulard je ne suis pas surpris qu'il soit sorti dernier de sa promotion du centre de, de, de, de l'Élan. Il était dernier de sa promotion. Et Cheikh Issa lui demande, avant de l'insulter à Hambourg, de dire pourquoi il s'est classé dernier alors qu'il est entré major. Il a dit de nous édifier. de nous parler de cette dame-là qui l'a empêché d'étudier correctement. Le nom encore Le nom de C'est pas Juliana Juliana. J'aime bien même la... Il y a une chanson s'appelle Juliana, de salsa trop bon. Juliana aussi devait, devait, devait tellement, tellement devait, devait, être belle comme la chanson. Soki est un faux Ibadou donc. Même dans les rames, il y a un faux marabout, un faux marabout qui doit s'occuper de Juliana. Un, un, un Ibadou ne s'occupe pas d'une Juliana. Il s'occupe de son chapelet et de son Coran. waaye kii ba yéen yéen Sénégalais yi kii li leen ndax betti na li muy wane ci boppam ak li muy def say-say bii say-say bii say-say bii ku xam ay mbóotam da koy jëppi billaahi wallaahi talaay koo mën a naxaate ni sonko mën a sos mën a yàqu der mën a kàcc mën a rey mën a reylu mën a toj sonko ngooku kenn mënu raw sonko ci loolu waaw kii ku ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaama yo réew mi ëllëg ku dof ba di ko jox surne bi un rebelle koo xam ne bëggoo Sénégal tirailleur sénégalais yi nanguwul sax ñu ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal moo doon incarné l'Afrique c'est de l'histoire la capitale de l'AOF Dakar tirailleur yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp sénégalais lañ mu ne non la place du tirailleur africain tirailleur africain amul ci histoire du monde tirailleur sénégalais moo am parce que Sonko est nul ba pare dafa bañ Sénégal Sénégal yi yeewu leen stade bi bëggu ko coupe d'Afrique bi ñu gañee bëggu ko daf ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle yu baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mënu ko tere dee rebelle ju suul ko rebelle mu yeewu alaxira rebelle yàlla xam ne nu muy defee moom ndax 14 mois yëpp moom la moo ne mortal combat dem leen dee na leen jaral seen bakkan waaye moom kan la yow nit nga ko biiree nit nit ñi ñàkk fay la dem di dee pour yow yow yaay kan daa ko fee jàng kenn daa gënoo sell kenn gënoo fee bëgg senegal kenn ëppoo xam-xam kenn gënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bii bu mu leen yóbbu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey dangeen yaakaar soog ko juru leen jox leen biberon jox leen añ jàngalu leen di leen nax ngeen dog leen ay xar ak ay béy ah, daf leen ay pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko ko tax jóg rebelle bu ñëw Sénégal la pour délocaliser le conflit Casamance indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di ree na ne ha ha taal naa Sénégal kii vrai terroriste criminel bu bon a ngi alors encore Sonko di saaga magistrat yi di leen wan yéen du dara dañ jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa plus plus marrant il dit man sama ndigg lay métti sama ginnaaw gi da daan métti ba nga xam ne mën a tëdd couvre-feu bi li muy métti métti ñu aaye ñu génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jóg faju ji waaw docteur Adji Sarr fan ko formé ban ban université ban faculté de médecine ban ba fu mu jàngee kinésithérapie waa ji waa dëkk ba waa dëkk ba fële ca booru fa mu dëkk jir naa